au niveau de la biscuiterie ñi ngi def une forte mobilisation pour wan ko ne biscuiterie comme ni candidat pour ñu réélire ko au premier tour avec une forte majorité Et bëgg a dalal xelam ko majorité boobu la biscuiterie Nous ko jox incha allah waaw euh, euh, la ni Moi, dafa wane autorité yi qui, couverture maladie universelle euh, moi euh, le PDCU moi tous ces programmes l'aéroport euh, les autoroutes Ila Touba etc donc l'ol c'est visible c'est palpable le a fait un mandat ses prédécesseurs n'ont pas fait durant tout leur mandat aujourd'hui responsable nous mokkal ko ba dalal xelam ñun waa Biscuiterie yi génn ñu dem fenn fii la ñu toog won ko ne Biscuiterie yi vote Macky Sall incha allah. Biscuiterie amul tendance ndax man ci suma bopp liggéey naa ba waa PDS sax ñëw nañ ci man waa réew mi ñëw nañu ci man képp koo xam ne Benno Bokk Yaakaar moom nga nekk ñëw nga ci man dajale naa ñëpp autour de moi te ñu ngi liggéey pour le président Macky Sall soo gisee mobilisation bi wane na boppam jarul wax. bon nous le 24 au soir les institutions ont nous le jour, à 18 h les tendances vont montrer que le président a gagné avec une forte majorité.